taxawu Sénégal dimb daje nañu nee nañu nag lancé nañu ab pétition boo xam ne dañuy lànk ñetteelu candidature Macky Sall jàmm gën troisième mandat yéen kay gi di enquête ñu xëy fekk fa Nafi Diallo mi yor wàllum jokkoo gi ci parti bi di PDS daan nay wax ne PDS parti la boo xam ne kenn du ko santas nee na PDS tamit liggéeyul ak Macky Sall ndax PDS bu doon liggéey ak Macky Sall Karim Wade nëga ni ma ngi ci réew mi du nekk ca diwaanu Qatar gële nga xam ne dañu ko faa exilé wax ne coalition wàllu Sénégal ak coalition Yewwi Askan Wi alliance waaye du alliance politique nee na li nga am na moo leen boole woon ak yeewi askan wi ay élection la woon élection yi jàll na kenn ku nekk na dem bàyyi li baayam am na ay nit ñoo xam ne ñëw nañu ci Karim Wade ngir mu gisante ak Amadou Ba Karim lan lànk ba sa naaj wa loole na fi jàlloo moo ko wax daat nay waxti mi ne Aminata Touré mii maanaam def na ay ñaawteef Karim Wade Aminata Touré def na ay ñaawteef maître Abdoulaye Wade Aminata Touré def na ay ñaawteef ñi nga xam ne ñooy waa PDS loolee moo tax na fi jàllo nee na Mimi Touré mi daal mënuñu ko koo baale yéen a kaay gi di Vox Sénégal rawatina ndaw ñi bu ñu ñu seetaane ba Macky Sall jàpp Ousmane Sonko dugal ko ci kasu bi ñoom yàqu nañu daan nay wax ne nag ñoom danañu fas yéene jàmmarloo ak Macky Sall waaye en tout cas li am ba de Sall askanu Sénégal rawatina ndaw ñu ñoo warta nangu ñoo warta nangu ñoo warta nangu Macky Sall ci boppam di jàpp Ousmane Sonko di ko dugal ci kasu bi moom Karim daan nay wax ne élection yi nga xam ne moom la ñu dëg bala Ousmane Sonko dina ci bokk dina ci bokk par force bu ci bokkee dina daal di a nekk si jàmm ndax mi seen a kaay gi ministre bi ñu dénk kaaraange réew mi ne ma ministre de l'intérieur daan nay la waroon a commencé révision liste électorale yi di dax yàggatul dara danañu daal di xam ban date la ñu koy ubbi yéen a kaay gi du l'observateur las les écoles le quotidien Walfadjri enquête réew mi quotidien xëy di ñu xibaar naan ñu forum civil transparency international daan nañuy génne li nga xam ne mooy ab rapport ci jëm ci wàllum xeex wàllum guerre waaye nag Sénégal puusul léegi nag ma ngi ci ligne rouge maanaam réew yi nga xam ne fa la ger ga wulee ñaay Sénégal ci réew yooyu la bokk Birahim Seck daat nay wax ne nag lépp Macky Sall la lépp Macky Sall la ndax Macky Sall mi nga xamante ni dal mooy dóor doomi aawoo làq doomu ñaare la jël ay dossiers yoo xam ne moo si teg kuddam loolee bokk na ci li nga xam ne moo ko waral moom Birahim Seck nee na Nafi Ngom Keïta mi nga xam ne moom la ñu dénkoon OFNAC mu fa doon def liggéey bu am solo di ko fay jëlee loolee bokk li nga xam ne moo tax ger gi mel ni tulleeg male waaye tamit lu jëm ci wàllum ñàkk réforme gi nga xam ne moo am ci réew mi waaye loolee tamit ñàkk encadrement bi am ci financement des campagnes loolee bokk na ci moom Birahim Seck daan nay wax ne ay réforme mënut a ñàkk waaye nag lu jëm ci wàllum déclaration patrimoine loolee tamit war nañu xoolaata ndax Sénégal jamono ji tudd nañ ko ci réew yi nga xam ne dañuy setal xaalis bu léwu la blanchiment de capitaux yéene kaay gi di Sud Quotidien daan nay wax ne lu jëm ci wàllum xeex guerre Sénégal puusul paasul la defu ci benn jéego yéene kaay gi di ñi nga xam ne ñooy waa Forum Civil ñoom Birahim Seck jamono ji nag li nga xam ne moom la ñuy sàkko maanaam contrat bu terre bi terre bi contrat bi loole la ñuy sàkk askanu Sénégal ñu wax leen ci lu mel ni midi ñu wax leen ci lu mel ni midi ndax nag sénégalais yu bare bare bare bare bare xamuñu dara ci contrat bi nga xam ne moo dox diggante réewum Sénégal ak société bii nga xam ne mooy SETERA yéen kaay gi di Vox Populi xëy benn entreprise nationale boo xam ne jamono ji sonn na ba maara day taali mooy Sonacos Sonacos ci nërmeelu la jëma Sonacos bii nga ne moom la ñu dénk Modou Diagne nga xam ne ñooy liggéeykat yi na jamono ji daan nañuy alerté ndax nee nañu gisuñu benn camion boo xam ne wàcce na gerte ah jëndu leen gerte yoru leen xaalis ñoom nag nee na ñu jamono li nga xam ne moom la ñuy maanaam il faut ñu am budget cent milliards ngir mën a def seen liggéey correctement Sonacos ma ne la ci nërmeelu la jëm ci fayit ci tëj yéen a kaay gii di Rewmi Quotidien xëy di ñu xibaar naan ñu askanu Sénégal bëri na ci ñoo xam ne am nañu déception am nañu mbetteel de ci lu jëm ci wàllum location bi nga xam ne gouvernement bu Sénégal moo waxoon ne daf koy wàññi weer wu ñëw génn yéen i kaay gi du l'observateur premier ministre bi moom nag moo bindi conseil constitutionnel ci lu jëm ci wàllum location bi ndax mën naa nekk ci weeru février wii waaw wala déet tey jii la waa conseil constitutionnel nag di tonto yéen i kaay gi di record ak sar xëy dañu xibaar naan ñu CHAN 2023 Sénégal démb moo gagné Madagascar benn bal ci dara qualifié na final digganteem ak Algérie la yéen i kaay gi di sunu làmb ñu xëy fekk faroog mbalax muy càmbar combat bi xam ne moo war a dox diggante rëg-rëg ak Sa Thiès juróomi fan ci weeru mars moom mbër mi di roog mbalax daan